asalaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien man Auma Makama Antoine Diom, Tontouma. ma te moo ne jëwriñ la juy ngir sama kaaraange bu Antoine Diom, mënta tontu man xalaatuma sama fukki junni xel Khalatou, man sénégalais ma wax président Macky Sall Tontouma. ma egguma ci dayo bobu. te moné, ne suñuy baat la ñuy dagaan nyo ñu jox leen ko te li may wax bu leen leeree ne dafa woro gis-gis ak politiciens yi xol leen jamono ji sénégalais yi liñuy wax ci toile bi moy manam problème insécurité bi ak ñom sen programme ñom mooy manam liste bi da wara jall liste bi jallut diw def na nangam il ne s'intéresse que la politique c'est ce qui les intéresse naka la ñuy def ba gën pérenniser wu ci pouvoir bi c'est ça qui les intéresse et c'est malheureux pour nous te le nga gis ñenn ñoo xamne ci askan wi lañu bok waye intérêt seeni intérêt mom mo nek ci ñi nek ci nguur gi mba ñi wëy politique dañu ñew saga la tifar la ay saga ba nga toy ndax dañu japp ne yow xébu nga xébu bo xamné touti nga touti go xamné waro wax ak seen kilifa te seen kilifa li def kilifa yow la c'est ça le paradoxe des politiques ce qui intéresse les Sénégalais ne les intéresse pas aujourd'hui je vais lancer un appel à tous les jeunes du Sénégal je vais être pragmatique mbéjum kanam borom a koy fajal fajal boppam te lii raam ci ñak bi la jëm gox yeeg gox goxani nga xam ay zone à risque le nak jeunes yi fa dëkk dajalo def ay cellule de veille out ay mbolde out ay arme de réplique parce que ñii kafuñu caaxaanuñu suñuy bakkan la ñuy bëgg jël ñu out ay moyens de répondre à ces malfrats parce que buñu sétané wala ñu tok di xaar alkaati ci tali bi la nekk te li xew ci koñ yi lay xew il faut que ndaw ñi nekk ci biir gox yi jël seen ay responsabilités pour mën gérer situation bi parce que politique yi taluñ ko xool leen waxuñu ci ñun ñom ñi ngi wax ci liste yi ndax dina jall wala du jall élection yi ndax dina bax wala du bax c'est pas la sécurité de Sénégal leur priorité et tu vas voir des politiques comme eux ou des gens qui font du larbinisme manam ay markat dañuy ñew ci souf na ndangam ndangam saga, saga, saga sey wajur ba nga toy te yow ñom feefu ñu nek yow ya len fa tek yow sénégalais bi nga xamné yaay dund insécurité et c'est très dommage je voudrais j'ai parlé avec le cœur parce que li xew Pikine dafa métier en fait jigéen ju wosi jigéen ju ëmb ba def juróomi weer ay samba boy fek ko fa ray ko et ça se répète comme ça chaque jour nga dégg ka bu bees dañuy toog continuer di seetaan non notre reste prenons nos responsabilités s'il vous plaît les gars ñun rek ñoo si mun dara.